Ahmadou Bamba kenn laa Ahmadou Bamba kenn laa Ahmadou Bamba kenn laa rahim alhamdulillah wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbokk jullit ñi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baal waaq ànd ak di leen baal di ñaan yàlla yàlla nañ boole jéggal di ndokkeel mbokki jullit ñëpp ci weer wu tedd wi ñu nekk muy chahru ramadan al mubarak di saf sunuy nuyoo comme ni ko sëriñ aadama waxee di dalal ak di tatargal sunu gan gu tedd gii di sànni tuuti rekk ci ay kàddu ngir njëkkalanteeg waxtu wi ci xam ni tey ñu ngi dalal sunu kilifa di dalalit sunu jëwrin waye di dalal sunu serigne di serigne محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي وزك لبي وافتحا ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلي بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغلين دي نيو دي لين زيارة بو باخ دي لين دوكيل تي جتاي يو ماغي يي جتاي بو خامني دارا تاخول ني داجي كو لودو يالا اك يونتي اك اسلام di leen ndokkeel itam ci weer wu màgg wi nga xam ne ci lañu nekk muy chehru ramadan al mubarak nga xam ne jeexal nañu fukki fan yu njëkk yi ba tàmbali fukki fan yi ci digg bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na fukki fan yi ñu nekk njëggalug yàlla la fukki fan yi ci topp ci la sunu borom di goreel nit ñi ci sawara itqun minan naar kon yàlla na ñu yàlla may ñu fekke ko ba jeexal ko bu koor gi jeexee itam bàyyiwaat ñu fi ñu fekkee fekkewaat yeneen i ramadaan te luñ ci def rek sunu borom nangul ñu ko su ko defee ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi ñu ci fekk ñëpp di ko tàmbalee ci imaam euh, sëriñ fàllu Gueye sëriñ Serigne Adama di ziyaara Serigne Adama Gueye mi nga xam ne moom tam moom lañ fi fekk léegi di ziyaar Serigne Jiili di ziyaar euh, Mbaaya waaye itam di ziyaara bu baax sëriñ xaadim mi nga xam ne moo wàcc kàddoom léegi ci ubbi bu am solo boobu nga xam ne def na ko ñu leen di ndokkeel bu baax di leen ñaanal yàlla lu am solo lii nga xam ne taxawal ngeen ko di ko def sunu borom dëgëral leen te may leen ci ay ndam ndax dara gënta baax ay jotaay yoo xam ne jotaay yi jàngale lay doon jotaay yi xam-xam léegi nag sàggane nañu ko waaye dajaloo wuñ ci lu ko gën ndax loolu mooy tax ñu xam diine looy tax looloo tax ñu xam lu mbir mu xew mu nekk ñu xam ñun jullit yi nan lañ ci mën a taxawee loolu moo ñu koy may waaye nag bu ñu ko deful ci làmbatu rek lañuy dëkk rawatina ci weer wi ngeen ko def ci bërëb bii nga xam ne itam moom ngeen ko def muy bërëb boo xam ne lii dong moo ko tax a jóg jàkk ak jumaa tekkiwul ne julli rek selmal dem moko ko tax fa lañu wara waxtane lepp waxtaanee bi sallallahu alaihi wasallam jakam je bam ko defare ci madinatul munawwarah masjidur rasul sahaba yi fa lañ Dan tagate dan defar sen pas-pas lepp lu xew itam te jakka ja lañ ko dan lañ ko dan defar lañ ko dan kon jotaayub jakka lu am solo la ndax boko toge rek donte wo defo dara nga tewlu yegne yaangi tok ci jakka yaa ko toog ak yàlla yéen a bokk at yaa ngi mel ni ku toog ak sunu borom tabaraka wa taala kon jotaay bi baax gi ak yiw wi ci nekk rëy gi mënee su koo wax yàlla ko yàlla nangu ni ko sëriñ bi waxee léegi rek thème bi nga xam ne moom lañ ñu santoon mooy asiyaasatu fil quraan asiyaasatu fil quraan bi ko waxee mooy rek asiyaasatu fil islam siyaasatu fil Qur'an lan mooy politique ci biir alquranul karim waaye du politique rek nii tout court waaye alquranul karim lan la indi ci siyaasa muy politique. politique nag ni ko mbokk mi waxee léegi buñ ko waxee rek dana defee daal di rëcc ndax dañoo Sénégal yëpp dañoo jàpp ni léegi politique moom lu bon la buñ nee nit ki diw day politique sax ñu tàmbalee di tey ci moom li ko waral mooy. dañ koo salteel baatub politique ak baatub doxaan dañ koo salteel ba kenn ñemewu ko wax sax ci jàkk ndax jàpp nañ lu bon la ndax dañoo wëlbati baat bi di ko jëfandikoo noo xam ne waruñu ko woon a jëfandikoo noona kon dafay jaadu ci jullit yi ñoom seen bopp ñu koy euh, diraasa ci islaam ak ni ko islaam euh, gisee ngir ñoom ñu mën cee am gis-gis bu leer ba mën a jëfandikoo politique mu mën leen a jariñ Euh, politique nag bu ñu ko waxee rek tudd ay kilifa ne ay politiciens lañu dana mën naa rëcc waaye waaye ñu xam ne ci njëlbeenu thème bi dinañu jéem a wone ni politique lu baax la ba bu ñu waxee kilifa sàngam ne da ko daan def kenn bañ cee dana bañ cee rëcc te xam ne kon lu baax la daan def su ko defee alquranul karim itam politiciens yi nga xam ne tudd na leen ñeen ñi mu tàgg leen. ñi ci dess mu ngagne len ñoñu tamit dinañ ci indi ay quelque luñu man insha allahu waye tam jeexale ci yonente bi Sallallahu alaihi wasallam ñu jël ci dara rek ndax mom mbiram du jeex ci yennat yi nga xamne ay stratégie la yu mu daan def yo xamne ne daana tax juli am daana tax julit yi ben benn daana tax julit yi sen développement gaaw ñu jeexale serigne touba radiallahu anhu ak mom nan la mëna mën ci mom ci politique ban politique lañu mëna a ci mom ci aw doxalinam ak li nga xamne def nako insha allah taala euh as siyasatu fi luga politique buñ ko waxe ci lugha arab yi ñokoy wax lolu bu dee ci walu baad politique bi nak ñi ci seen xam-xam match nee ñaari baad la muy poli ak tik poli ñuy wax ne moy mi ngi tekki ci grec ab dëkk wala dal fo xam nit ñi dañ fa daje difa dundu waaye nag bu dee ci arab yi ñoom dañ ko tuddee as siyaasatu ki koy def ñu tuddee la saïs muy politicien bi euh, bu dee baatu arab bi mu ngi jógee ci saasa yasuusu siyaasatan muy masdarum fiaalatan boo demee ci ñiy jàngale conjugaison mooy euh, sarfu borom laamiyatul afaal nee na sulaasi yu li mën a am ci ay ci ay ci ay ci ay masdar dafa bari am na ay quelque masdar fiaalatun wa fuulatun wa ji bihima mujarradayni wa bitta wal fuulu sila waaye moom fiaalatan la jël muy siyaasatan lu mel ni diraasatan fa yuqaalu saasa ad daabba ida qaama ala amriha min alxalaf wa saqyi wa tawrit wa tanzif wa xayri zalika cosaanul baat bi arab yi ñu ngi ko jëlee ci saa sa at daaba mooy yow mi am sa daaba sa sa mala ak jur fas wala xar wala nag wala bëy nga di ko toppatoo di setal fi mu nekk di ko defar di ko sang moom ci boppam di ko faj bu feebaree di ko jox muy lekk di ko toppatoo baat boobu la ñu jël ñoom tuddee ko baatu siyaasa kon loolu rek liñ ci mën a jàngi dafa bari ne kon ki ko ki nga xam ne moo koy def yàlla dimbale ko ba mu dem ba yilif mbindeef yi kon kooku kon dafa war a nekk daanaka li ñu war a wax jaamub ñamu yilif di sonn ci ñoom guddi ak bëccëg ndax ñoom baat bi boobu lañ jël wa hada al maana huwa al usul wa hada al maana huwa al usul allazi uxisa minhu siyasat al bashar mu mel ni kon doomu aadama bi toppatoo gi muy toppatoo yi mu yi mu moom ay bagage boppam ba ci ak juróom bu demee ba mat ba mat day jàll ci mbindeef yi mu war leen a toppatoo war a taxaw ci seeni mbir loolu mooy sensu baat bi dëgg-dëgg loolu mooy baat bi ci luxa moo tax arab yi dañuy wax ni bokk na ci majaaz li ñu li ñu maye nga wax ne sustu ar raiyata siyaasatan ay amartuhum wa nahaytuhum maa ngi toppatoo responsabilité bi nga xam ne moom lañ ma jox ñi ma yilif maa ngi leen di digal maa ngi leen di tere maa ngi leen di orienté maa ngi leen di dimbali ñoom dañuy waxee noonu ci seen baat ci seen ci seen langage ba tey mu dëggalaat li ma njëkk a wax rek te mooy kon ndekete mooy koo xam ne dafay ñëw di sonn ngir jariñ ña nga xam ne ñoom la yilif ngir jariñ ña mu nekkal euh, siyaasa nag te mooy politique bu ñu ko waxee bu ñu bu ñu waxee atem ci lislaam ate bi ñu ko war a mën a jox ci lislaam mooy farata la eggul sax ci dañ ko wara def ak yoy waye day farata waye nak fardu kifaya la xam ngeen ni farata ñaar la fardu kifaya ak fardu ayni fardu kifaya moy bi nga xamne mom kenn mën la ko defal yow ya yow rek ya koy defal sa bop fardu ayni nak moy ah, fardu kifaya moy bi nga xamne bu ko ñenn defé bu ko ñenn defé mu wacc ña ca dess fardu ayni nak kenn mën la ca yobale lu melni julli ak woor ak ak euh, ak xeeti ibaadaat yi nga xam ne yaram moo koy def am ci yoo xam ne nag bu ko ñenn defee rek mu yóbbaale ñëpp waaye bu ko deful nag bu ko kenn deful ñëpp am ca bàkkaar boo demee ci siraaju saalik bi niñ ko jàngee gis ngeen mu ne wa qasamul farda ila qismayni qismun kifaa'iyun wa qismun ayni ama alkifaa'i ma bihi l ismu saqat an il wara bi fi'li insanin faqat misle al jihaadi lu mel ni jihaad jamono ci njëlbeenu lislaam dañ daan xeex xeex boobu fardu kifaaya la daan doon ñu ko matee suñ ko taxawee rek dafay yóbbaale ña ca des wa jihaasil mayiti mbokkum jullit moo xam ne dafa jiitu ñu war koo sang sang ko jullee ko yóbbu ko denc ko bu ko ñenn defee mu wàcc ña ca des ay mbokkam surtout ñoo ci gën a yey wa raddu li taslimi delloo nuyoo bu kenn ñëwoon fii tey daal na ne asalaamualeykum kenn ci ñun rek ne ko waaleykum salaam yóbbaale na ñun ñëpp kazalika bu mbooloo ñëwoon fekk la nga toog kenn ci ñoom rek moo nuyoo ña ci des nuyoowuñu mu yóbbaale ñoom ñëpp aw il qada wal xirfati al wa nasbu lis sultaani wal aimma nag boobu nag laa soxla lu mel ni atte bu ñenn ñi jàngee ba am niveau mën a àtte nit ñi ñu am ca lim bu ko doy bu ca bu ca bu ca bu ca jaadu rek ña ca des mën nañoo jànge leneen waaye itam mépp métier moo xam ne day métier moo xam ne nit ñi mënuñu koo ñàkk moom tamit fardu kifaaya la ci ñenn ñi dem jàngi ko ñii dañoo war a jàng alquran ba man ko dem jàngale ko ñii bu jàngee alquran ba noppi nag nañu dem jàng ni ñuy ñawee ay yére ñii nañu dem jàng ni ñuy defaree ay dàll ñii dem defi leneen ñii defi leneen ndax lenn lu nekk. ña ca des dañ koy soxla waye bu ñepp démé ba ba ba nekk ay sëriñu daara nekk jàngalekati alquran léegi jàngalekati alquran yi bu ñu soxlee mbubb nag koy jëlé bu soxlé aw dal nak kon faawu ñen yi dañuy def li ñu ci def li ñu fexé nak ba li nga xamné ne farata ci ab julit ñepp war ko xam lool mom jàng amul ku jàng ku jàngul lool ñepp ko wara xam julit yëpp dañ ko wara xam loolu lu am am solo la gaay dañuy netalé né góor gi dafa dugg gal bi mu duggee gaal toog ak ay gone ci biir gaal gi ñuy joow gaal gi góor gi daal di na xale bi yow yow jàng nga am foo toll ci alxuraan mu ne ko ah man de góor gi jànguma ah moo ko ponkal mu toll ni yow jàngoo yow de sa bàyyi sax na yow kat sa bàyyi sax kat di ko xas ñu dem ba ba ba ba ca biir géej gi rek am ngelaw lu foor lu ñëw gaal gi daal di yëngu di di di di bëgg a wëlbatiku di bëgg a te xalé ñom ñoom ñoo mën a féey mana rek ñoo mëna lijeenti goor gi tay bu bu ñangon ba ñang xalé bi daal ne goor gi ne ko yow ndax man nga fey way mu ne ko man de doomu féey ma ci dara bay bo rek ngeen dimbalé ma mu ko ah yu kat goor gi nga kat sa bay la fey <laughs> ay kon lolou muy tektale ne kon ki man li ki man li ki man li lo am solo la donte nag liy fardu ay ni ci nit moo war koo xam ci diineem kooku moom amul menuisier bi amul mécanicien bi amul keneen ñëpp ko war a xam moom ku ko xamul am bàkkaar kooku fardu ay ni la li nga xam ne mooy tax say faratay jëmm mën a wér waaw loolu moom ñëpp ko mën a xam ñëpp ko war a xam. Oustaz ñu ngi lay ziyaara bu baax su ko defee bi ko bi bi ci topp mooy wa nasbul sultaani wal aimma mooy fal. fal président de la république loolu kon lu bari da ci daal di dugg kon dañuy daal di gis ni kon euh, politik dafay nekk kon fardu kifaaya mënul ñàkk askanu yépp lijjanti tam fexe ba samp kenn mu nekk njiitu réew mi itam loolu mënta ñàkk bo election jotté kenn ku nek jël sa carte électeur dem wote ji lol tamit dafa ñuy tegtale lol tam mënta ñak farata la su boba lolou sax mom day nek fardu ayni su boba kenn ku nek nga xamné am nga responsabilité dem dugal sa loxo ci li fal ñitu réew mi <coughs> waye nak bu boba nak nga def ko ak responsabilité bañ ko def ak parlo waye xol sa ak sa borom té xamné carte bo nga jël diko ko ci urne bi ëlëk yamal qiyam dañ la koy laaj masuliyya la moo tax fardu kifaaya ni ma ko waxee bu ko ñenn ñi defee rek na ko na ko na ko lim bu ko matee rek defee moo tax yaakaar naa ci luwaay tubaab sax bu élection jotee yaakaar naa ne bu dee askan wi téeméeri nit lañu cinquante yi ak dara suñu wotee rek dañuy wax ne taux bi baax na faiblewul maanaam loolu man valable na pour mu fal njiitu réew mi loolu muy firndeel ni kon bu dee ci ñoom itam kon day xaw a yor atteb fardu kifaaya boobu <coughs> baatub siyaasa nag moom ñëwul ci alquran alquran indiwu ko baat bi kalima bi ñëwul ci alquran du ci benn saar amul benn tam baat boo xam ne dañ koo xare dañ ko conseillé ci baatu siyaasa mu ñëw ci alquranul karim amu ci bari na ay lu bari loo xam ne alquran moo ñu ko jàngal waaye baat biñ ko tudde ñëwu ci lu mel ne baatu aqida aqida boobu gisuñu ko ci alquran yaakaar naa ne baatu tawxid sax est ñëw na ci baatu tawxid jàpp naa ne ñëwul ci alquran waaye li li li li li li tawxiid di wundu loolu moo ci ñëw kon siyaasa <clears throat> bu ci ñëwul itam daf koo jàngale donte indiwul benn baat ne lii mooy siyaasa waaye jàngale na ni ko war a defee indi tam indi ci ay exemplaires yu bare bari comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi boo jàngee aayab laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib nee na walakin al birru man amana billahi wal yawmil axir wal malaikati wal kitabi wan nabiin kooku juróomi ponk imaan yëpp dugg na ci arkaanul imaan yëpp dugg na ci wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxeyratu min amrihim loolu gëm dogal al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi dugg na ci juróomi ponki ngëm yëpp daal di mat kon siyaasa yitam noonu la deme alquran indiwul baat bi waaye jàngale na ko bu dee ci sunna nag xadis moom indi na ko ndax am na benn xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixay ni nee na kaanat banu israil tasuusuhumul ambiya kooku moom baat bi kalima bi la jëfandikoo al ambiya kullama halaka nabiyun xalafahu nabiyun ila axiri alxadis tasuusuhum al ambiya kon baatub saa is muy politique politicien bi mooy ki nga xam ne mooy taxawe askan wi ci seen i bëgg-bëgg di leen toppatoo ngir ñu mën a dund ci jàmm mën a développé ci côté yépp alquran tudd na baatub malik ak mulk te loolu buñ ko waxee mulku ak malik nguur gi ak la mu yilif lépp ak ña ca biiram lépp da ciy dugg njiitu réew mi ak li mu yilif lépp day dugg ci baatu mulku boobu tadullu ala xukmi naasi wa amrihim wa nahyihim wa qiyaadatihim jaa bi asalibin alquran indi na ko ci ay uslub yoo xam ne yu bari la daal di cité nag ay politiciens <clears throat> ñenn ñi mu tagg leen comme ni ma ko waxee ñenn ñi mu ŋàññi leen bokk na ca ñooña ibrahima alayhi salaatu wasalaam mam duuxoon bi xusne siyaasati ku ñu tagg la ku yàlla tagg la ngir volonté politique bu mu amoon ak politique bu rafet bu jub bi mu amoon ak yeneeni yonent yoo xam ne ci ñëw faqad aatayna ala ibrahima alkitaaba wal xikmata wa aataynaahum mulkan aziman man maa jox ibrahima ak ñoñam ak ñam àndaloon maa leen jox ab téere boo xam ne ci la sukkandiku mu leen di orienté waaye tamit maa leen jox xikma xikma mooy loo xam ne ay stratégie la yoo xam ne day nekk ci yow doo ko jàngee ci benn téere wala nga koy liiree fenn waaye di nga ci mën a jaar ba li nga bëgg ci lu baax am waaye tamit man yàlla maa leen jox nguur politique ci alquran dañuy wax ni sunu borom daf ko tënk ci ay kalima yoo xam ne ñett la bi ci njëkk mooy tamkiin istixlaaf ak mu ñetti baat yooyu wa kazalika makkan naa li yuusuf fil ardi yatabawwa'u minha haysu yashaa'u tamkiin mooy man maay defal kattan man maay jox kattan sama jaam bi ci kaw suuf maa koy kattanal ci kaw suuf kon nit ki saa boo amee kattan rek mu delloo ko ci boromam xam ne yàlla moo ko ko jox mu wax ba tey ne alladina in makkannahum fi l ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar gaa yi nga xam ne su ma leen joxee pouvoir ci kaw suuf dañuy dimbale nit ñi ñu mën a jaamu seen borom aqamu salaata dañuy accompagner nit ñi ñu mëna jaamu yalla mëna dimbalante ci seen biir waaye itam wa amaru bil ma'ruf lépp loo xam ne lu baax la dañ ci soññ nit ñi ak di leen ci di leen ci xirtal lépp loo xam lu contre nature la wala lu bon dañ dañ koy tere dañ ci dañ ci gàllankoor nit ñi loolu nag loolu itam muskila bu rëy rëy la ndax boo ñu xoolee suñu état yi njiiti réew yu bari léegi topp nañu occidentaux yi ba nga xam acte yi nga xam ne acte yi contre nature la ñoom ñëpp daanaka nangu nañ ko léegi ku ko ci nanguwul tam ci ci zahir nii nangu nga ko ndax contrôle ñu de ko def ci sam réew bàyyi nga ñëpp ñu def lu waay neex di ko def ñu bëgg koo teg ci turu laïcité bi nga xam ne moo yàq àdduna bi léegi waaye itam wàllu xeetu jaamu yàlla loolu itam gàllankoor nañ ci nit ñi ndax jaamu yàlla li li ci dimbale nit ñi mooy mu tënku ci diine ndax diine moo lay indil programme bi nga mën a jaamoo sa borom suñu borom nangu ko ñoom nag daanaka nit ki nga xam ne moo tënku ci diine te gëm ko sax ca kooku en général ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy opposé ak moom ndax ñaari du ñu bokk ay gis-gis te itam du ñu mën a déggoo ci lu bari moo tax ñu gën a dëggal baatub laïcité bi lu xew loo leen wax ñu ne fii pays laïque la euh, état bi warut a jeng jëm ci kenn te loolu. yàq na lu baree baree bare léegi ci sunu ci sunu ci sunu ci sunu dëkk yi rawatina dëkk Afrique yi waaye itam baatub istixlaaf istixlaaf mooy waa ji nga xam ne moo yor pouvoir mu gëm ne dafa am ñeneen ñu ko sunu borom jële leen fi te moom itam sunu borom dana ko fi jële wuutal ko keneen wa adda allahu alladina amanu minkum wa amilu salihaati la yastaxlifannahum kama staxlafa min qablihim min bani israil badalan al Jabbara. sunu borom tabaraka wa taala mo dik julit yi ne leen ak jaamam yi nga xamne ñoko nangul ne dina fi jele ñi nga xamne ñoy togn kat yi samp len jox len katan waye itam sen kanta sen katan lu mu yag yag dina ko mësa jël ci seeni loxo jox ko ñeneen loolu nag bokk na ci li nga xam ne itam léegi njiitu réew yi duñ ko bàyyi xel ndax daanaka ku ci nekk ci pouvoir lu dul jeex nga koy jàppe doxinu lu dul jeex ngay doxin da nga jàpp ne lu dul jeex nga yor ba ko ñetteel mooy kalimatu xukmu muy atte inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha xakamtum bayna annaasi an taxkum bil adli sunu borom tabaraka wa taala dafa laa digal yow mi jiite nga delloo amaanaat yi ci seeni borom amaanaat yi mooy yi nga xam ne dañ la koo dénk ngir mu war a delluwaat ci askan wi comme ñu suñu ni suñu ni suñu état yi doxee léegi nga xam ne askan wi ñooy dajale seen alal jox kenn ne ko séddaleel ñu organiser ñu nga xam ne moom loolu lépp dafa war a delluwaat ci askan wi mu yilif waaye boo xoolee léegi contraire bi moo am léegi kuñ ci fal da ngay duy say kees ba mu fees nga bàyyi askan wi nga yilif ñuy souffrir. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci weeru mag wi di ci jiital nuyoo bi nag sunu baay sunu sëriñ bi nga xam ne moom moo taaral jotaay bi muy sëriñ Babacar njaay di ko nuyu di ko ñaanal yàlla eh, li ci sëñ mbay mi wax rek loolu lay feddali diine do nga ko ñor ak mbaax do nga ko ñor yalla yalla yagal ko fi te may ko fan bu gudd lool te ànd ak ñuy sant bu baax serigne bay ci waxtaan wu am solo wi wax deug yalla waxtaan wi am solo lool lool lool lool xam-xame na lool wax deug yalla kawe na jortu yi de lool ndax waxtaan surtout bu fekke da nek waxtaan wo xamni dafa laal point yu de ni lii mu doon waxtaane muy politique te li ngay waxtaan loo wax lu nekk rek nga mën koo dali indil indil ko dalil ci alquran ak ci jëfi yonante bi salallahu alayhi wa sallam ak jëfi saxaaba yi loolu wax dëgg yàlla day wane ni waxtaan wi tege na ci xam-xam lool ndax xam-xam moom dara génnu ci alquranul karim lépp loo xamante mënuñu koo layal ci alquranul karim loolu wute nag xam-xam waaye lépp loo xamante ne nii suñ ko waxee man koo wutal dalil ci alquranul karim loolee day wax dëgg yàlla lu tege cim xam-xam la kon ñu di ko sant bu baax waxtaan wi am solo lool li doon waxtaane rek muy politique ci lislaam yaakaar naa nit tem la boo xam ni lis koy waxtaane ci mbooloo yi bariwul lis koy waxtaane ci mbooloo yi bariwul ñu bari it sawaruñ cee waxtaane ndax xëy na def nañ ci suñu bopp ni dafa nekk thème bu sensible boo xam ni euh, dana war a bàyyi rek tubaab yeeg ñi nga xam ne ñoo jàng am nasaraan di ci wax boo xoolee ci pénc bi daanaka noonu lay demee buñ ko xoolee ci ñiy waxtaan rawatina ci rajo yooyu doo ci dégg ku wax ci politique ak gis-gisuñu lislaam ci politique kon waxtaan la woo xamante ne nii das ko war di waxtaane das ko war di waxtaane ndax politique da ngay gis nit ñi booy suivre débat yooyu rawatina ñi jàng tubaab dañ lay gëmloo ni la politique ak lislaam bokkewul fenn bokkuñu dara te fekk la ñuy wax contraire ba moo am contraire ba mooy li am politique du lenn lu dul aw doxalin doxalin nu ñuy jiitee nu ñuy gouverner loolu mooy politique maanaam baatu politique ci cosaan loolu lay firi. àddina nag xam ay système politique yu baree baree bari yu bari ndax lu jiitu lislaam nit ñaa ngi doon politique bi lislaam ñëwee dafa indi système politique système boobu nag moom la sëñ bi doon waxtaane système boo xam ni amul tay ji lenn loo xamanteni ni nii am na ci politique te lu mel noonu alquran ni ndiw xanaa kay li ci nekk mooy ñoon nit ñi dañ koy def ni wuuteeg na alquran digle lu wuuteeg la alquran digle waaye la ko daggee ci nu nuy tànn jiit alquran wax na ci charte yi ni jiitee alquran wax na ci relation yi nga xam ne moo war a dox diggante kii jiite ak ñii muy jiite alxuraan wax na ci relation yi war a dox suñu diggante ñun ay jullit ak ñu dul ay jullit alxuraan wax na ci nu ñuy tànnee ay ay ay ambassadeur lu lu nekk alxuraan wax na ci alxuraan yëmul ci wax ci maanaam alxuraan wax ci rek doyul waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo appliqué lim tatbiq nit ñi gis ko ñun nag gëmloon na ñu ni politique ak diine moom bokkuñu laalewuñ dara li ko waral mooy lan dañoo gëmloo benn système boo xam ni wër foon a am amul fun place muy almaaniya muy laïcité laïcité am na Europe am na ay circonstances yu tax mu am fa waaye fii ci suñ réew mii moom wax dëgg yàlla amu foon place ndax laïcité li tax mu juddu maanaam catholique bi euh, si euh, église bi ak ni mu doon doxee ak nit ñi te teguwul ci yoon di leen not lu ne mu def ko ba mujj ñi nit ñi rével eh, nit ñi xëy révolté wu loolu moo ko fa indi loolu nag amul fii ba fi diine nekkee ba léegi muy lislaam amul fii jenn diine joo xamante ne ni wala kenn koo xam ni kilifa ak diine la kon xam ci not ay nit mbaa toroxal ay nit mbaa def la ne dul noonu kon islaam nim jàngalee politique loolu mooy li wér sëñ bay dafa tudd ñetti mbir yu am solo yu alxuraan tudd muy ay mustalahaat quraaniya mooy tamkin tamkin mooy dëgëral nguur yàlla moo koy joxe bari pexe mënta joxe nguur bari pexe mënta jox nguur ndax bu bari pexe doon joxe nguur kon ku jot ci nguur dootoo dootoo nguur dootul génn ci say loxo waaye alxuraan li dafa leer tamkiin yàlla mooy dooleel nit jox ko nguur moo xaat leneen muy istixlaaf muy nguur ku ko yor rek ci loxo yi nit lañ ko jële jox la ko loolu sëñ Tuubaa daf cee daf ci bi muy dénk sa sàmbalaw bi bokk na ci lam ko waxoon ni ko àddina lum la jox ci sa loxo moroom la ko fa xarñee kon ku yor nguur war ngaa xam ni lii dañ la ko dénk rek ci ay loxo yi nit la nekkoon ba yëg si ci dina jóge ci dem ci keneen kuy xalaat loolu di xalaat ni lii am na ci ñu njëkkoon a nekk day jóge ci man dem ci keneen di nga xool bu baax ni ngay doxale di nga rafetal aw doxalin beneen ba ci tam mooy alxukmu te xukmu ci alxuraan alxuraan li ci gën a bari buy wax mu daf koy méngale ak adaala muy justice dafa am boroom xam-xam bu mag bu neex ibnu xaldun boo wax wax ju am solo mu ne al adaala hiya asaasul mulk justice bu dëgër boo xamante bu wér nag waxuma justice yi nga xam ni moom la ni moom lañ moom lañ moom la moom la moom moo am waaye justice boo xamante ne nii du ragal borom doole waaye du ñàkk yërëm du ñàkk yërëm ku néew doole waaye ñëpp a yem nga xam ne annaasu ka asnaanil musht nga xam ne dañuy mel ni ñoom ñëpp a tolloo ci ci ci ci ci justice boobu justice boobu nag la Ibnu Khaldun wax ni moom mooy asaasul mulk mooy mépp réew moo xamante ni mi ngi dox te doxul ci ak njub doxul ci justice fa muy